asalaamaaleykum sama tey naa ne bu ngeen fàttalikoo ay ay at ci ginnaaw juróomi at ci ginnaaw. le 30 août 2017 la ñu indi woon Assane Diouf Sénégal bi ma toogee Almadi di live dama ne ko Macky Sall jur nga ay junniy Assane Diouf.

di wax xale yi naan leen ku ci dof doflu ba ñu rey la ndax Ousmane Sonko yaay ñàkk sa bakkan déedéet. keroog lañu ko. mu tawee taw bi. waaw moom la ñu wax alxuraan kii dem na seet. mu ngi ne mu ngi ne. xoolal booy. jaata ngi ne la booy. jaata ngi ne la. yow yow soxla ñu taxaw ci xeex taxawal na. oh. waaw. ah kii gàllu ko def dërëm. lañu wax ni dañu dee Sonko dañu dee dañoo pare dañuy dee dañuy dee da Sonko laa wax dañuy dee mooy ñi nga xamante ni bu ñu xeexoon duñu taxaw fii di xeex eh, sama gars yi sama gars yi da ngeen xaw a wàcce tuuti ñi nekk ci ginnaaw jël quoi borom téléphone yi s'il vous plaît ah. waaw tuuti rek ah bu leen ko nangu mukk ci am parce que Sénégal gi ah Macky Sall moomu ko keneen ku dul Macky Sall moomu ko Ousmane Sonko moom mooy espoir u waxuma espoir de la jeunesse Afrique non anglais moo ne Afrique is the motherland mu ne suufu Afrique boobu moo jur adduna bi yëpp Afrique mooy yaayu adduna kon kii espoir u adduna bi la parce que espoir u espoir u àdduna bi bu leen fàtte ne amoon nañu Cheikh Anta Diop amoon nañu Mamadou Dia yaa ngi dégg amoon nañu Omar Blondin Diop kon tey yéen jeunesse bu mu leen di lu mu jaral Macky Sall ma leen ko jaral ah, waaw waaw ay juge am moom moom ay policier moom moom tribunalam moom moom ay kaso ñun ñoom moom mbedd mi merci beaucoup ñu ngi jox kàddu gi